asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen ni nuyu yéen suñu mbokk waa presse yi fi teew di nuyu aussi sénégalais yëpp yi nga xam ne ñu ngi seetaan ñu ngi seetaan tey euh, conférence de presse bi nga xam ne man ak monsieur le maire Bilal Diatta tey damay wax sax le capitaine Bilal man képp ku ma xam ci Pastef xam na ni sama wax bariwul ci lu lu nekk duma ci wax waaye suñu laalee suñu leader suñu laalee li nga xam ne dafa sori si ñun dañuy génn parce que ñun taxawaay boobu la ñu am te moom lañu mës a am vis-à-vis de ce projet fi Sénégal toll nag dafa jaadu bu ñu demee ba mbir am ñi nga xam ne dañ cee bokk fonk loolu seen ay kilifa fonk seen ay leader su lu mel nii amee ñu taxaw wane ni fa ñu nekkoon démb ak bërki démb foofu la ñu nekk ba tey mooy nekk les garants mais aussi les porte-étendards du projet bi nga xam ne ki ko jiitee nekk suñu président de parti mooy le président Ousmane Sonko. le président Ousmane Sonko nag defe naa kuy wax jàmbaar kuy wax sénégalais bi nga xam ni ci cent dernière années yi suñuy seet le plus méritant mënoo koo weesu ñun nag ñu sori loolu ci Ousmane Sonko ñu sori loolu ci ki nga xam ne. mooy le chef de file de notre génération am lu mu liggéey ci Sénégal ba tey ñu dog bu mu njaam yi ñu dénk Sénégal son excellence monsieur le président Bassirou Diomaye Faye le premier ministre Ousmane Sonko ñu war a doxal kon bu ñu demee ba gis ni yëf yi mu ngi bëgg a ëpp loxo bu ñu demee ba gis ni paysage politique bi am na loo xam ni mu ci ciy am te jàpp nañ ni jaaduwul dañuy génn taxaw fa ñu nekkoon démb ak bërki démb ñu nekkaat fa sol suñu ay mbubb yi nga xam ne ñëpp moom lañ ñu xamee mooy les garants de ce projet patriotique yi nga xam ne mooy Pastef nit nag kenn du ko xeebal kilifaam nit kenn du ko xeebal gëm-gëmam te nit da ngay jox warma ki nga xam ne daf ko jël def ko jiit ñun suñu njiit mooy le président Ousmane Sonko en politique ki nga xam ne moo tax ñu dugg ci politique c'est le président Ousmane ko te damay wax toujours am na ñoo xam ne nawloowul ak ñoom ndax euh, ba ànd jotee dafa ànd ak ñoom ci ngor jox leen teraanga lépp lu ñu doon tey ci Sénégal ginnaaw yàlla moo leen ko def kon bu doon gor kese mooy dox ci réew mi defe naa am na jëf ak wax yoo xam ne du jëpp di jëmale jëpp si génn gémmiñu ñenn ñi di jëm ci ki nga xam ne mooy suñu leader le président Ousmane Sonko su ma waxee loolu di ngeen xam ni tey c'est la lionne de Pastef Khadija Mahécor moo génn tey dama ñëw fekk si mon frère Bilal ñun suñu wax bariwul ci projet bi parce que dañu nekk ci suñu ay mairie di liggéey fi ñu président Ousmane Sonko teg ñu nekk fa nekk à la base nekk leen maire patriotes gëm ni projet bi dafa am wàll bu rëy boo xam ne dañ ko war a jouer ñu toog fa di ko liggéey waaye nag li ñuy wax am na loo xam ne bu jibee il faut nga génn àddu ci te li nga xam ne jub na ci paysage politique neexuñu te ñu ngi koy ñaawlu du ñu yem nag ci ñaawlu ko élection lañu jëm lañ koy faj te faj bi nag mooy lan danañ leen wan ni wiiri wiiri jaari ndaari danañ leen wan ni wax ji wax ji ci urne yi lañ koy réglé dinañ leen wan ni Pastef fa mu nekkoon démb ak bërki démb tey la waalo gën a ay tey lañ gën a nekk ci xolu sénégalais yi tey la sénégalais yi gën a wóolu le président Ousmane Sonko lépp lu ngeen di wax di ko jéem ñun dañ leen di wax ni moom du seen nawle ñun ngeen di jàkkaar loolu man may Mahécor Diouf man maa mayatul nit muy taxaw di am wax yu ormawul yu muy yëkkati di ko teg ci président Ousmane Sonko ndax nag mooy suñu kilifa mooy suñu njiit di ko xam ni mayuñu nit mu ciy wax loo xam ni jéggi na ko baat may lancer nag un appel solennel à tous les maires de PASTEF parce que bu ñu nee politique dañuy wax la base nous sommes les maires de PASTEF ñun ñoo nekk ci base bi ñun ñoo fas ne mobiliser wu ñun ñëpp pour donner cette belle victoire à la coalition PASTEF jàpp ni ñun ñoo mën a mobiliser les militant à la base te dinañ ko def ñu am ay député yoo xam ne dañ leen investir le président Ousmane Sonko investirul ay mairam dafa investir yeneen force yoo xam ne ñu ngi ci suñu biir parti ñu war a dem taxaw ci biir assemblée bi ñu nekk ak ñoom ci département yi nekk ak ñoom ci communes yi te ensemble dinañ relever ce défi là bi nga xam ne c'est le défi non seulement de la participation de la mobilisation mais du résultat au soir du 17 novembre kon nag que les patriotes du Sénégal se comme un seul homme se mobilise ndax nag pesum kanam borom moo koy fajal boppam mën nañ ko mënuñu ko à nous de démontrer à la face du monde que le président Ousmane Sonko non seulement du seen moroom mais que ce président bi nga xam ne tey moom la ñu àndal gunge ko pour mu nekk suñu tête de liste ñun ñoo koy garantir sa victoire au soir du 17. donc loolu laa amoon lu ma ciy wax du bari di leen wax rek ni les l'heure de la mobilisation à sonné et que chaque patriote. lu mu jàppoon na ko bàyyi ñu takku comme benn say jóg fajal lii suñu bopp di wax ñi nga xam ne nag dañu am lu ñu war a wax wala lu ñu bëgg a wax ñun ñoo leen di défier ñu ñëw wax ko ak ñun di leen wax ni ñun dañoo nekkatul ci débat de rue ñun dañu nekk ci di d'idée dañu nekk ci débat d'un projet boo xam ni pour un Sénégal nouveau dañu nekk ci débat boo xam ne c'est la transformation du Sénégal ak développement Sénégal moo ñu ñor kon képp ku nga xam ne ñeme nga ñu ngi lay woo ci plateau yi ñu ngi lay woo ci débat yi nga ñëw ñu waxtaan ngir Sénégal boo ko mënul nag nga xam ni politique politicienne jeex na ci réew mi di jeexal wax ci di wax ni président Ousmane Sonko bu demoon ba mu desee ko benn nit wala ñaari nit man mii lay doon Khadija Mahécor ak monsieur le maire Bilal parce que jàpp nañ ni suñu wareef ci projet bi c'est de garantir au président Ousmane Sonko lépp li nga xam ni moom mooy worma bu ko nit war a jox ak. kilifa fañ ko war a teg te ku ko ko joxul ñun lay jàkkaar lool jërëjëf